Cheikh Mouhamadul Basir Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Mokhtar moom Cheikh Sidil Mokhtar moom boroom darul Mouhty sëñ Basiru maa ngi lay ziar bu baax yow wax naa ko ba tey sa waajur ñun ñii di waxtaane sëñ Touba ñëpp ay sam lañu woon booba benn télé rek a fi ne lii nuy tuddee kennal sëñ Touba sëñ Modou Matar njëkk a génn di ko def defin woo xam ni defin woo xam ni bu doon tey la moom la ñuy wax kennal sëñ Touba rek te booba RTS kese am genn gone jotewul cib tele kenn amul ko joti cib télé sëñ Modou Matar RTS di ko filmé muy kennal borom Touba sa sa way jur ñun ñëpp ko ameel njukkal waaw moom it muy nit ku baax dib taalube waaye noonu mu mel ci bàyyi noonu la mel ci ndey ndax alaaj ma faal ku ne xam naa kook waa kër ma Masamba kër sëñ Masamba la ba ba mu jeex kon ñoom nii rek mu mel la war a mel fifteeg ma naan ku baax la waaye yow baax rek nga war a def yàlla na yàlla dëgëral la ni day naa day naa léegi kii ab jëw sëñ Mor Fall mii day naa ko ab jëw nee naa ko sëñ Mbàkke Murit ku rafet xol mooy sëñ Mbàkke Murit waaw sëñ Mbàkke Murit ku rafet ab xol mooy sëñ Mbàkke Murit Madoune Fall micro micro mii micro daa dem ba mel ni dorog Madoune Fall keroog nit gën a mën a bari fuñ koy woo muy wax ci la gën a accro ci micro barki Seexul Xaddim keroog ngay gën a bari programme ci ngay gën a accro ci micro kii dafa danger fi ñu koy gis nii waxkat fu mu pour moom fu mu toog rek dañ koo war a jox rajo bi moo tax sant naa sëñ tubaa damay wax gaa yi ni leen man damaa bëgg di seetaan rawatin nag fii ma ñëw tey sëñ Mbacke Murit mi noonu la mel fu mu la fekk bu sañoon da ngay wax mu door a wax wala du wax sax buñ ko joxee rajo siñ Mbacke Murit temps bu gàtt lay wax ndax sóor gaa ñi toog te bu fekkoon daa toog rek ñëwul ci géew bii ñu nekk di waxtaane sëñ tubaa wallaahi ñu koy siyaare mu boole ñaari cër yëpp takk ndigam takk ndigam xam ni Cheikh Ahmadou bàmba ah amul mbokk am na mbokk waaye amul mbokk ndax képp ku ku mu jur soppi ku ngab taalube ñi mu jural boppam ñoo njëkk a soppi ku taalube sëñ Saaliw mii ko yar waaye nag wolof yi ñooy wax ni mag ñi sax ñooy wax ni sëñ si Ahmadou Bamba bu nit masaana wax diwa baax du la laaj ku ko jur ku ko yar la lay laaj te moom mii sëñ Saaliw ko yar kon ni mu mel rek la war a mel maa ngi nuyu suñ xaadim mbay mi ma fekk muy wax waaw sama suñu alaaji sama wóllëre la hmm. Hmm. sa way sa way jur alaaji jaaja fekk naa ko kebe maire ci conférence bu moo doon def keroog këram lan ma dalal maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ku baax kii dend ak sëñ Basiru sëñ Xaadim sëñ Xaadim Ngom maa ngi lay ziar bu baax ma ziar naa la ngir miinuma waaye kàddu yi sëñ bi wax léegi ci yow jar nañu ziar la li ma fekk nga yor koot képp kuy wuyoo sëñ Touba war na koo yor bu ma la fekkee nga yor alxuraanul karim ñun ci sëñ Touba nga bokk rawatina ñu tuddale ko war naa mën a nekk suñ mag bi damay faral di wax ni ku bëgg xam sëñ Touba mooy kan ci yàlla xoolal ni mu def bagage yàlla yi bagage yàlla yi nag mooy Sayyiduna Muhammad alxuraan néegub yàlla ñett yi boo xamee ni ko borom tubaa def rek nga xam borom tubaa mooy kan ci yàlla alxuraan lañu wax ni wenn xarafa ci gën rasulullahi suñ tubaa di wax alxuraan yaa xayra munzilin yuri ma gaaba zaata daburi rabbi yusaf fi fikari bika bi xayri tuhami wax foofa ca gannaawam arsalahu laahu ila kullil waraa murattilaa zikran alayhi unzila hudan lizi taallumi masikan bil kitaabi maska dariri bi yeddil qaaidil basiril muayni wax ca jaalibatu masiyaat wa innahu moom alquran xurwatul wusqa fa mumsikuhu gadan yafuzu la dal bi jannaati sëñ Tuubaa nee na nga def ku ko def dina dem àjjana ngëpp alquran rek bañ a bax wa huwa alhuda wa siraatul mustaqimu lana fa kullu man aafahu laqat saxaawaati nee na ku foñ alquran da nga dajeek texeet yi bëriwul lu mu koy digge waaye dig na ko ku foñ alquran daa di wax tamassaktu moom borom tubaa dégg nga tamassaktu bil xablil matinil murattilan wa bil xurwatil wusqa allati hiya nuuru daal ni huwal kanzu mooy sama ndàmb mooy sama coffre fort wal kibritu wa zaadu lii huna bihi tantafi naaru xadan ci sax ci moom sax la may yàllay fegale bu ëllëgee sawara ci alquran alquran a waxoon ñi waxal boppam ñi ngëpp sama téere bi te duñu faat waxtu du ma delloo seenu pay bi mu ko waxee borom tubaa bàyyi Cheikh Saliou moo jël engagement yàlla ñëpp la waxal waaye si borom tubaa jël engagement nag dama laaraaf 169 wala na yu masikuuna bil kitaabi wa axaamu salaata inna laa nu diyon ajral muslihina wala ziina yu masikuuna bil kitaabi bàyyi Cheikh Saliou ni masaktu bil kitaabi wa axaamu salaata mu ni za iqaama li salawaatil xamsi bi istixaama sëñ Touba nee na jëmmi kaamil bee daw seey ci sama dënn saay loxo mokkal ko sa saab xol mokkal ko farra daw na li kalkal yi daw na li yi seey fii ñu ni ko lu seey foofu mu ni kitaaballaahi téereb yàlla bi wala yaddi saay loxo mokkal na wa xustu ajrallaahi payuk sans borom gi sans borom teg na ko ci sama loxo wala yi nag Seex Abdu Laat nettali nañu ko bu yàggul nee na daa am ku bindub kaamil bàyyi koo barab def ko ci jaafirab der laxas ko ci malaan jox ko borom tubaa addiyee mu téye ko ni ko waaw góor waw na koŋ waaye fa xan farriqan kazabtum kalimatu kazabtum del gu tooy ga danga nga koo fàttee sadda sëñ Abdu Laat da caa dolli wax ni wallaahi ba nu ubbee kaamil ba noonu lan fekk mu mel kon kooka bu ne ay loxo mokkal na ma nees na koo gëm may nuyu gaa yu baax yi ma fekk jàngkati xasaayit yi sëñ Alaaji Fall maa ngi lay nuyu bu baax baax moom mii sunu wëllëre la daa am ku ko wax léegi yaakaar naa bàyyi jaara la daf ni ma ba nga ñuy fekk ndar booba fifty man rek la xam xamul ñaari nit saaliwu sàmm rek la xamoon jàngkat ba fa ñëwoon maa ko gàddu andi ko bi may ñëkk ñëw ndar 5 septembre fifty xamul ñaari nit ci bàmb ji moo tax bi ma yegsee mu naa ma yow bu la neexee sax bul wax waaw bu ma neexee man waratumaa wax sax man waratumaa ñëw ci jotaayu fifty di wax sëñ Mbàkke murit moo wax rek nga fexe ba jox ma rajo mais man damaa war a toog mu xam ni ci li mu ne loolu laa nekk ak moom su sama waxtu jotee ma dem doy na ndax bis bi bis bii bisu tey bii ku mën a wax ci Cheikh Ahmadou Bamba benn baat bu jub di nga ci xat <laughs> foo dégg ngeen maam déet kenn képp ku mën a wax tey jii sëñ Saliou Mbàkke ñaari baat yu jub ku ko mën a wax murit yi dégg ko bëgg tey mënoo cee féex faw nga xat waaye man lu ma xat-xat dinaa ñëw ci wetu fifty toog ba mu xam ne sëñ Saliou a ngi nii toog fu may dem ma door faa dem parce que li nu boole moo yàgg waaye way juróom wi di ku baax ma dun faal soxna xarit ba mi ban ko njëkkee fekk ndar na mu meloon ba tey jii noonu la gën a mel te yëf yi yokku na fi nag te ku dajale ñaar fukk ñu bokkul fu nu bawoo bokkuñ fu ñu leen yare da nga dajale ñaar fukk ñu bokkul jikko waaye moom soppikuwul benn yoon xaw ma dégg ngeen maam déet vingt personnes yu bokkul fu nu yaroo ku leen dajale dajale vingt personnes yu bokkul jikko waaye wenn melokaan wi rek bu ñëwee muy dalal ñëpp xew wa day jeex sax mu naan xaar leen sama añ bi bari na kook ay gan danañ ko ñëwal xaw a baree noonu macha allahu day yàkkamti ñu jeex ba dem day yàkkamti xew bi jeex ba ba ñu dem waaye moom barki seexul xadim dalay forcer pour nga toog añandoog moom ci ëllëg sax bu ñëwee ci ñaari rakka yi képp ku fifty am jàpp na la képp ku fifty am bàyyi na la xel gërëm na doomam nag ci sunu kanam junni yoon moom Amadou kon Amadou lu mu def feneen ñun mën nañ ko d'accord parce que mbay ci say wóom te balaa teral kenn yaayam ji la la jéem a teral ba noppi ku muy jàkkaarlool mu door a jàkkaarloo yow ak bëggam sëñ Saaliw nag lu yàlla dogal ci moom la ak bëggam sëñ Saaliw lu yàlla dogal ci moom la yàllaa ko tegtal sëñ Saaliw mu bëgg ko mel ci nii mu ci mel yàlla wanale koog Cheikh Mamadou Mourtada boole koog moom muy buntam ca kër ga yàlla na seenub ànd yàgg bañ leen di raamaan ci barke borom Touba. ba maa ngi lay ziyaara bu baax maa ngi nuyu soxna Ndey Dervis mii yàggul lool dem naa këram ci ab xew-xew bu fa amoon mook bokkam ya fa ñëwoon yëpp ñuy ay nit ñu baax ñu yiw ñu bëgg lu baax keroog Amadou mii fekk na ma fa biñ ma wooyee ba ma ñëw bala maa jóg Amadou mii fekk na ma fa muy fii ci kër ma sekk Ndiaye ci weeru koor mu fekk ma fa moom mii di doom ca kër ga soxna si jàppe ko na mu jàppe ay doomam ba ma fay dem xaw ma woon sax fi ñu yegg ak Amadou ndax dañ maa woolu woon rek ñoom ngir ma ñëw defal leen waxtaan wa xaw ma woon nu ñu demee ak Amadou waaye ba ma fa toogee am ma fa 30 minutes Amadou dugg si damaa ci laa gëm ni sama kër laa nekk ndax kii fu ma ko dégg waxuma la fu mu ma fekk mbaa ma fekk ko fu ma ko dégg rek garanti naa fa sama bopp waaw fu ma ko dégg rek naa fa sama bopp ndax yàlla dogal na bi mu yoree jikko ju baax di tab ba noppi mën na nitam mën na nitam xoola daf may gëj a gis Baye Diarra barke Cheikh Ahmadou Bamba le 5 septembre ci guddi la ma Amadou gëj a gis ci suba ga lañ gëj a wax téléphone ba tey jii barke Cheikhul Khadim sonaluma ko ci dara waaye bu ma wooyee xam nga lu muy wax damaa bëgg ngay ñëw fii ma nekk. soo fi fekkee junni ñu bokk ko soo fi fekkee ñaari junni ñu bokk ko soo fi fekkee ñaar téeméer nga jël ko soo fekkul dara nu toog waxtaan bu sa heure dem loolu la ma loolu lay wax su ma jotee téléphone loolu lay wax ak man barke Cheikh Ahmadou ma fii tànk nag waaye moom bu sañoon guddi gu jot mu gis ma li ma am ma wax ko mu bokk man ma ñibbi dafa loo xam ne ku la ko wax yéene la del ñëw soo fi fekkee junni ñu bokk soo fi fekkee ñaari junni ñu bokk soo fekkee ñaar téeméer yóbbu ko su ma su ma yorul dara ñu toog waxtaan ma ni ko ñaanalu ma la ñàkk a yor dara waaye bu fekkoon saa yu ma ñëwee dañuy toog waxtaan rek doo xalaat loo ma jox guddi ko yot ma ñëw loolu laa ko tontu te barke Seexul Xaddim su fekkoon damay ñëw mu may bàyyi may dem saa su ne mu may gis waaye as góor moo moomul sa sama deret man moo nanguwul koo xam ne saa yu ma ko gisee mu jox ma ma koy ma koy fréquenté sama deret nanguwul loolu saa ko gisee mu jëm maa jox lii tax ma koy raar moom. lii tax li may gis bariwul parce que loolu tamit mënul nekk sama deret ji attanul loolu man ku ko attan yow la mais man attanu ma ko de koo xam ne saa yu la gisee day day làmbatu lu la jox amanu bu demee ba ba tendeefal ba tendeefal ba jege oto bi sax naan waa jëndal lii essence kooku nga koy fréquenter chaque jour mënul nekk man mënuma loolu loolu rek a tax doo ma gis waaye yaa ci sama xol yaa ci sama xel li lay wan ne yaa ci sama xol yaa ngi ci sama xel mooy loo loo xewle di nga ma seen moom saa bu la nit ñi wuy dinañ ma fekk mbaa ma fekk leen fi moom waaw li ci des nag moom say bagage a tax mënumaa ñëw waaw affaire affaire bi loolu la soxna ndey yàlla yàlla yàggal sa taxawaay yàlla na yàlla barkeel sa njaboot bi mooy Serigne Mourtalaam sëñ Saaliw fifty wariwu ko moo dox ba dugg fii ndax dégg li ma la wax sëñ Mourtala kan moo gis ci barab ci ndakaaru benn barab ci ndakaaru ah kan moo mës a gis sëñ Mourtala ñun la ma nga barab ma nga place diw yàllaa ko tegtal Cheikh Saliou moom mii mu bëgg sëñ Saliou bëggug boppam goo xamante si nii xam naa man ci moom ni àttanul bëgg gi mu bëgg sëñ Saliou yàlla di wommat caatum sëñ saaliw ba mu dugg fii ndax mës ngaa gis loolu kon bëgg ga ko yàlla bëgg loo woon sëñ Saliou moo confirmé si diggam ak sëñ Mourtala yàlla na ngeen ànd yaag sëñ Mourtala ba weex tàllak bi jaaw te nu fekke ko ma dun kontaan naa ci yow sëñ Saliou leen mu mujj gis ci doom bi borom Tuubaa ma dolli la ci Madoune Fall borom Touba mi yàlla dénkoon ruuy moom sëñ Saliou lanu ñu wërsëgale nun ndaw yi mu jug jamono kenn ku ci ne ci nun nag bu la neexee fu la neex jébbalul waaye ñun sëñ Saliou muy suñu wërsëg ci njabootuk borom Touba ndaw yi jamono ndaw yi mu jug jamono Cheikh Saliou mbakke mooy seen wërsëg ci njabootuk borom Touba foo mën a jébbaloot sëñ Saliou way sa kilifa yàlla teg ko fi waxuma ba mu ñëwagul nag ndax ba mu ñëwagul woo ci duggee dinaa yàgg lool aw yoon léegi léegi dafa am benn rajo bu nekk Touba ñu may introsé ma ne leen li ngeen bëgg bu naree am du dem fa ma jëm ndax lu ma bàyyi rek ñu laaj ma leneen ci sëñ Saliou te sëñ Saliou lu ñu la laaj nga génn ay paroles yu gën a riis ñëw ci sa bopp lu ñu la laaj ci moom rek parole yu riis ñëw ci sa bopp su fekkee bëgg sëñ Touba gëm ko ku ci mel ni sëñ Saliou amul fam tegoon Cheikh Mouhamadou Moustapha adduna yëpp seere na ko fa mu tegoon alaaji fallu mbàkke adduna yëpp seere na ko sëñ fallu mbàkke moo wax ni jumaay sëñ bamba ji bu ma delloo woon saalihu mii lim ma ci jox kàmb gu rëy feeñ ndax dégg nga ma alaaji cheikh mouhamadou fadal gën a jubóog yàlla ñépp sëñ fallu moo wax ni jumaay borom tuubaa ji joxar bi jumaa ji ni bu ma delloo woon saalihu mii lim ma ci jox kamb gu rëy dina fi feeñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di borom Touba sëñ saalihu xëy yónnee ko saa koy xaalis mu koy wàññiloo ña sëñ saalihu yónnee woon ñuy wàññi ba takkusaan suba ba takkusaan ni ko nangam de la nu jàpp ni moom la mu ne xamoon naa lim doon de dama leen doon seddaloo liggéeyub saalihu lu mu liggéey bu at mi jeexee bu ko jaayee fii la jëm lu ci lekkub dërëm dama leen doon seedaloo digganteem ak borom ñoo ñooña jóge fa takkusaan laa la wax de ñëw ci sëñ Saliou mu ne xaw ngeen fa yàgg de ñu ne ko waaw sëñ dañ doon wàññiloo xaalis ba baax na kon ñëw leen wuti lu nu taal ci kër gi xëy joxe ay millions yu dul jeex ay saakoy xaalis laa la wax de dese woo luñ taal ci kër gi mooy sëñ Saliou mbayam musu cee mos benn doom sëñ Fallou Mbacke mii ma la doon wax sëñ Saliou mos naa tawat nekk ci tool yi yónnee fa yónnee ko ab woto ni nee leen ko damaa tawat na ma ñaanal ci jamonoy deqi sëñ Fallou Mbakke am ku mu booleeg ndaw yi sëñ Saliou ci woto bi ñu leen dem leen ngeen jëli ko ñu jëli sëñ Saliou mu ñëw mu tëral ko ci kaw lalam bi di ko faj ba deqi gerte gi jot sëñ fal lu yable ni dem leen ngeen deqi gerte gi te indil ma ko fii bu ko deqiloon boppam fii la koy indi mësta lekk mbayam na mag ña daa def ak borom tubaa la sëñ Saliou def ak képp ku fi nekkal borom tubaa million yu ne jox na ko ñi fi nekkal borom Touba moo tax milliards ñu xamee ko ci moom sëñ Touba ko fayee milliards yi sëñ Baara Mbàkke sëriñu sëñ Alaaji mii li ma lay wan ci diggante sëñ Saliou ak ñëpp se bàyyi Seex Sidi Muxtaar booba sëñ Seex Mati lay lañ koy wax li ma lay wax nii booba sëriñ Seex Mati lay lañ koy wax bàyyi Seex sii di Muxtaar daa ñëw indi 80 millions juróom ñett fukki million la ko bàyyi Seex di Muxtaar jox booba sëñ Cheikh Mati lay lañ ko daa wax xalifab sëñ Baara woon rek jox sëñ Saliou 80 millions sëñ Saliou teg 80 millions yi ba noppi juróom fukki millions la sëñ Cheikh Mati lay jox sëñ Saliou sëñ Saliou teg ko ba noppi génne xaalisu boppam tàllal sëñ Cheikh Mati lay baay seex gàntu xaalis bi mu ni ko jël ko de sallaaw damay fay bor daa am lu ma la bëgg a nettali insisté ba sëñ Cheikh Mati lay tey xaalis bi mu ni ko daa am lu ma la bëgg a nettali bi may ndaw damaa dem Kébémer fekk fa sa waajur sëñ Baara Mbacke sëñ Saliou nee na bi ma yegsee Kébémer ba nuyu sëñ Baara daa jóg piliaan bi piliaan bi mu toogoon moom sëñ Baara da koo jóg yëkkati ma teg ci piliaan bi nee sama tànk yi xawta laal suuf ndax booba doonaguma mag nee na mu xool ma ba mu yàgg mel ni ku ne ci tàngoor rek waaxu dugg dëkk bi fëgg kër yëpp sëñ Baara yuuxu waa dëkk bi yëpp ñu génn mu ni ñëw leen siyaare sama doomi sëriñ dañ fay dafay ñëw sama doomi sëriñ dafay ñëw sëñ Touba moo ni woon Saliou la tudd fi mu li coow li bëri yëpp sama dooma way nii saalihu maay saalihu waaye saalihu la tudd joxar bi saalihu la tudd sama dooma sëñ saalihu rek ko am ci sëñ moo tax Cheikh Modou Moustapha mi njëkk a doon borom tubaa këru mbuur gii nga naan borom goto mbuur li tax sëñ saalihu moom mbuur mooy 21 ans rek la am 21 ans Cheikh Moustapha ni ko xoolal ma kër gi mu xool ko ba ni ko mel na ni mu war a mel mu ni ko dama koy jaay sëñ saalihu ni tekk mu ni ko yow la yàlla jox njëkk nee ma noo bokk bàyyi sëñ tubaa ni woon moo la jur kon waaw damay jox signal la taxawal yow laay jox nga wax bul bul waxaat beneen baat ñii man ak ñoom ñoo far jàngkat yi man ak ñoom ñoo far ñoom xam nañu man xam naa waaw géwél yéen maa ngi ñoom a far waaw jàngkat yi duñu ay gone waxi mag la ñuy wax moo tax waxi mag la ñuy wax moo tax ma fonk leen waxi borom tubaa ku koy wax ku la fonkul dof la barki seexul xaddim ñii ñuy wax communicateur kenn gënu leen a murite kii nii fi mu toll boo ko téyewoon sëñ son bu léegi mën koo rey boo ko téyewoon sëñ laat son bu léegi mën koo rey mu mu mu jooy fii ba dee léegi li yor yëpp mu mën la ko jox mën a sumi mbubbam jox la kenn gënu ko doon murit bi ci des nag bi ci des mooy ñoom ndigalu yàlla la ñuy jëf communicateur traditionnel sëñ maxu Baye Jaara ndigalu yàlla ci la communicateur traditionnel nekkee boo xamee boppam laaj ma fu ko yàlla wax wa xuulu li naa si xusnan wax leen ci nit ñi lu rafet te ñi lu rafet rek la ñuy wax ci nit ñi kon man ak yéen ñoo far waaw bu xamee boppam ci ndigalu yàlla la nekk bu xamee boppam du jaxase du rabale te fu mu fekk mu tas dana fexe ba ñëwaat ko fu mu fekk mu teppi ko dana fexe ba ñëwaat ko maak sëñ Talla Ñang mi ñoo ànd fekk fi sëñ Alla Kan fekk fi Seex Mor Talla mi Alaaji sew mi fekk nu fi ñoom mbaay ak ñëpp nag dugg nañ ci biir ba ca Souleymane Samb mu baax mais ñëpp sëñ xaadim résidence mais ñoom ñëpp dugg nañ ci biir maa ngi kontaan sëñ maxu Saint-Louis waaw sëñ maxu xam naa ko bu baax xam naa ko mosuñoo dem ci kii te fekkuñu fa ca ndar kon sëñ àllakan da ngay way sëñ saaliw loolu nga ko bëggoon a way waa ji jël la